Mhm. kon jafewul pour joxe liggéey jafewul nga ñëw di tabax ñuy puukarewu tabax naa estade tabax naa autoroute tabax naa lii dégg nga affaire bi li sonk wax la maanaam réew li koy tabax mooy fexe ba nit ñi am liggéey loolu mooy tabax réew mi suñ yoon nekku ci ay stade yu rafet ak ay puukarewu ay tabax ay grand théâtre ñan ñoo fay dem ñi baadoole yi sax mënuñu fa dem buñ fa wootee nañu waxante dëgg ay tabax naa lii dangaa lajj ci sa politique te nanguwoo ko nga bëgg ñu forcer amadu Ba kan mooy amadu Ba d'abord fu Amadou Ba jóge am na ku ko laajte tontu leen ko kan mooy Amadou Ba fan la Amadou Ba jóge yàlla xam na ko laa la wax nii kenn mënu fee sàcc élection bu ñu taxawee nii xolal bu ñu taxawee am suñu fulla suñu fayda kenn mënul sàcc élection ci réew mi nama lu tax bu ngeen voté ba noppi kenn fu nekk am ngeen fa ay nit opposition ba bu ngeen voté ba noppi ngeen taxaw protéger vote bi bureau boobu noonu la fa génn ngeen xam ko parce que dañuy compter buñ ko génnee takk ngeen bind ñu bind dégg nga xam naa Macky Sall stratégie bi muy teg pour sàcc élection yi bu ñu voté massivement fexe leen ba carte yi bañ a dem ci ñu ay genre Pape Djibril Fall yi parce que ñoom bu ñu sañoon réew mi du réew mi du avancé na ngeen fexe ba carte yi bu mu dem ci ñoom ay Thierno Alassane Sall parce que ay rancunier lañu parce que bu ngeen leen doolelee rek dooleel dooleel ngeen Macky sàll parce que iñaane nañu jël seen xob bu boobaa dox jox ko opposition bi iñaane nañ ko na ngeen xam bu baax lu ngeen def ñooñu noonu ay gannaaw kër lañu ci réew mi ay ginnaaw kër ay candidat ginnaaw kër dafa am candidat doomi xaram dafa am candidat candidat di ginnaaw kër candidat doomi xaram mooy Macky sàll ak ki mu yabal candidat ginnaaw kër yi mooy ñii genre yi moytu leen leen ay coon ñang bu fekkee bokk na ay Pape Djibril bu fekkee bokk na ay ñoom Thierno Alassane Sall bu ñu bokkee ñooñu ay misiba lañu bu leen kenn faaleel bàyyi leen ak seen waa kër kese ñu votal leen amaana sax ndegam seen waa kër yi dinañ leen voté ñoom ñëpp leer na ma ne am nañ jabar ju ndaw joo xam ne sonk lañu ñu faa. Mhm. vote dem leen jëli carte d'identité yi voté massivement waaw te li ngeen am ci parrainage nag bàyyi leen di ko lépp ginnaaw bi ngeen waxee vingt quatre heures ngeen am un million nangam te boobaak léegi tegaat nañ ci yeneen ñaari fan. li ngeen am yëpp bu leen ko wax parce que Macky dafa teg stratégie li ngeen am lépp ci parrainage bu leen ko waxati total bi bu leen ko wax mukk su fekkee ne déggal ngeen ma mhm. wala bu leen ko waxagum même bu jëree wàññi si sax dem déposer ji li nga xamante ni moom la soxla ngeen wàññi ba ëllëg ba doomi xaraam yi taxaw ci justice naan gañe nañu élection bu defee ñu wax ak ñoom maa la wax loolu de maa la wax loolu góor góorlu bu baax a baax a baax a baax a baax fii yàlla dong moo fi nekk leneen lu dul yàlla neen la waaw waaw leneen lu dul yàlla neen la dégg nga ndax moo gisee coow li bëri woon trop ak ñun ak yenn taalibe yi loolu la woon ñàkk xam la woon man de xam naa xam naa ne ndekete dëgg dëgg changement yéen a ko bëgg donte kon am na ci ñoo xam ne ay fanatique lañ duñu mës a bàyyi génn ci fanatique boobu bàyyi leen ak seen fanatique lii Touba wane fii dégg nga ku mu yeewul dootoo yeewu man de dootuma leen woowati làppato wala bu ma juumee ba woo leen ko ngir benn doomu aadama yi sam bopp laa ko woowee xanaa ji day ah yéen wane ngeen nit yéen yéen yéen da ngeen wane ni yéenay taalibe maam Ahmadou Bamba dëgg barke Rasulullaay parce que tamit sëriñ yi bari woon nañ fi de waa lan moo tax ñu tànn ko ci sëriñ yi moom kese génne ko réew mi exilé ko ndax dafa bañ nii sonk bañee lañ ko def tëj ko ci réew mi tamit réew moo xam ni réewam la ñu tëj ko fi man mësuma am ak benn taalibe ci diggante man ak sëriñ moom ak sëriñ Touba déedéet maam Ahmadou Bamba ñun ñu xam ne nit ki doo xam ne kii bañkat la ba noppi ngay am ak moom problème nañu waxante dëgg wane ngeen ni nag taalibeem nga waaw leen góor waaw leen góor comme ni ma ko waxee rek li ma leen ñaanal tey ci àjjuma bii yàlla ko yàlla nangu waaw yàlla ko yàlla nangu waaw ñëpp nag mënuñoo baax ñi nga xamante ni ñoo jóg rek pour baax ñoom lay waxal sama yoon nekkul ci ñeneen ñi loolu damaa bëgg mu leer sama yoon nekkul ci ñeneen ñi nga xamante ne ay tappalekat lañu àndal sama yoon nekkul ci ñoom waaw ko bëgg baax baax ku bëgg leneen yaa xam xam naa ne duma doon sët boobu nga xamante ni damay war sama maam dégg nga ànd ak samay nooni maam tey di di di gundaandaat ngir alalu àdduna mu Mouhamadou Rafaay de wanewu ko bari na ak ñeneen ak ñeneen ñu ñu xamul wanewuñ ko waaye taalibe yii tamit wanewuñ ko de man xam nga man nek fi di tag nit man dama ci dul dox man duma dox ci lool yalla xam na kon suma deme ba wax rek amna lutax dafa am lu leer luma tek sama beut motax may wax de nga yalla xam na ni ni ngeen taxawé ni te yag ngeen ko taxawé yit lu nekk lan lañ leen ko fi jël nañ fi jël leen di dag ay bracelet di dagale seeni bracelet te bokul len ci ak ndigal biñu ñu lepp politique moko waralon ndax ñoñu dañoo and ak tay système dajal bi ànd ak tubaab bi di noot di noot taalibe maam Ahmadou Bamba yi loolu dong moo fi nekk moo tax ñu ne dañuy tere bay tere bracelet bu ñu takk bracelet bu ñu takk ah ñu koy tere te terewuñu yére Macky Sall ay taalibe di ko sol kenn du ko laal ku sol yow foofu yére Macky Sall kenn du la laal ku fa sol yére APR kenn du la laal nañu waxante dëgg APR ban njëriñ la ñu amal ban njariñ lañu amal dégg nga kon ñu ngi leen ñuy sant di leen gërëmaat encore une fois nee naa leen mënewuma côté boobu waaye dama koy jéem waaw man de xaw ma kan moo leen ñu woowee làppato waaye man génn naa ci du ngeen làppato de ku leen woowee làppato rek moom mooy làppato man maa leen ko wax man génn naa ci définitivement dégg nga damaa yaakaar ni woon tey ñii fi nekk tey nekk fii àdduna nu dañ leen ñu yóbbaale ndekete yéen ba ngeen taxawee yàgg na kenn yóbbaale leen yéenay jàmbaar barke rasulullah yéenay jàmbaar bu soobee yàlla nañ la koy defee nag taxawu suñu voté ba noppi protéger suñu vote bu ko defee réew mii liñ ci bëgg li maam Ahmadou Bamba bëggoon ci ay taalibeem ndax ku mënul ku ku mënul ku taluta am liggéey taluta jaamu yàlla dégg nga nan nañ ko xam mooy tax kooku di dem di defi bàkkaar di jaay bàppam boppam ndax joxuñu ko liggéey dégg nga moo tax muy dem di sàcc moo tax muy dem dugg dugg ci leneen ak leneen kenn ku ci nek nak gëmal li nga gëm mam ahmadou bamba limu wax dafa leer dafa ni gaay jaamu len yalla sama bop lay jaamul yalla ba fele muni may mindanu yonente bi kon fofu dafa leer nañ ku ne xamna ni mam ahmadou bamba sunna la doon dund ñi fi nek tay di bërek muy dox ño fi ño ci bëgg duggal leneen indi ci ay tapalé pour lek ci yeen xaaliss loolu dafa wara leer deng yeen nak bañ ngeen Macky Sall wo nañu ci système dajjal système mu Iblis lañu woo fii ci Covid bi kenn waxu ci dégg nga te am na ay sëtam yu ànd ak moom fii ci Covid bi la ñu woo ci système mu système mu dajjal dégg nga kon yéen ñi daw génn réew mi da ngeen nekk ci yoon ci yoon ngeen nekk ci dëgg ngeen nekk te bu ngeen jàng jee sóoratul kaaf di ngeen xam bu baax li may wax ndax dañ leen woo ci ñëw leen ñu jaamu Iblis ngeen bañ. bàyyi seen yaay ak seen doom yi dem jaamu dem wuti ji alal pour jàppale seeni waajur ba seen sœur yi du ñu dem di jaay seen bopp kuy jaay sa bopp génn nga ca lislaam ak leneen ak leneen dafa war a leer sóoratu kaaf lan la yàlla wax noonu bi ñu bañee mu ni leen mu ni leen maanaam yokkal na leen seen gëm-gëm waaw xoolal loolu rek ndaw yooyu noonu xoolal yokal na sen sen gem gem kon ñun ñi daw genn rew mi yalla nañu pour sauver suñu diiné ak suñu honneur yalla nañu yalla yokal suñu gem gem yalla nañu yalla nañu yalla yokal suñu gem gem waaw deng nga tapalé gi dafa yag 60 ans wala mu ëpp ko ñuy tapalé deng nga di di jaxaso deng nga Amadou Bamba ku fi nekk nan moko fi nekkal tay te and gouvernement bi da fay soop warna mamam man maa ko wax dafay sóob war na maamam parce que maam Ahmadou bàmba ci bañ la nekkoon li ñuy jël di ko tiitaroo naan jàpp nañ ko fii jàpp nañ ko fii di leen woo di laaj di leen laaj xaalis te bu fi gouvernement bi nekkee di leen rey ak di leen noot ñu lànk ànd ak gouvernement bi na ngeen xam ne ñoo ñooñu war nañu seen maam te maam Ahmadou Bamba waxoon na ko leeral na ko parce que yàlla wala yu yàlla ci boppam wala yu yàlla ci boppam yàlla da koy leeralal nañ tay oustaz Oumar Sall mi nga xamanteni tay tejj nañ ko ci kasso bi bu fi mam Ahmadou Bamba nekkoon da koy da kay domo man ma la ko wax. da kay sëtoo da kay domo parce que ci diine ji dong la nek yeena fi nek di weddi nan li la li la wax suñu mag ni da nga ñuy soop da nga ñuy fenn yeen yéen war seen mag ni yéen leen war. yéen leen war pa oustaz Oumar Sall li tax ñu tejj ko moy da doon wax gouvernement bi ni mu nekké lolo tax ñu tejj ko. kon moom buñ ko jàppee jàpp nañ ko ci yoonu lislaam loolu la kaa bi demee bu leen taalibe yi bu leen kenn jaxasee ak moom bàyyi leen yenn imbéciles li nag ñu dem taxaw di indi ay problème ak yeneen ak yeneen bàyyi leen leen seen bopp dañuy jaamu ba dee dem ñu leen yéen lan la lu leen xew li man wax loowu ma leen woon lii def loowu loowu ma leen lii dafa war a leer loolu mooy loolu mooy dëgg gi loolu mooy dëgg gi waaw nañu waxante dëgg rek te yàlla tax donte ko dañoo jël paaka bi teg suñu put gi waaw na wax dëgg gi noonu la kaa bi demee waaw kon nag gàcce ngaalaama bëgg ngeen dëgg feeñ yéen taalibe yi ak sénégalais yi bëgg ngeen dëgg feeñ yàlla nañu yàlla may dëgg waaw yàlla nañu yàlla may dëgg ñun ñëpp ndax dëgg rek moo am solo te mooy mujj dégg nga nit ñi bu ñu leen joxee seen alal réew mi ku ne xam na ni mag Sall jël na ko jox ko tubaab ana lan la sénégalais yi gagné ah ñëw dañuy fontoo xaalis boo xam ni dañ koo pérente tabax ci ay stade tabax ci loolu loolu mooy gañaa gi géej gi amul jën loolu mooy gañaa gi sénégalais yi gagné jën mënoo koo gis ci géej gi loolu mooy gañaa gi ressources naturelles yi kenn dalaa mën a wax nu mu toll terrain yi ñu defaroon avant indépendance est-ce que ñu ci ciy senegal yi ñuy doxi seen soxla déedéet manila la jour ko bi lañ ci yeb chaque jour mu lañuy romb te mëno leñ ci dara lolu moy gagnant gi loolu moy gagnant gi ah? li moy lan la rew mi gagné ba mu tok fi di balbalu nan ah rew mi li li lañ ko fi lañ ko fekkon fe da nga ñuy sop da nga ñuy sop tabax stade buñ ko bayiwon ak sénégalais ñu def ko ana li rew mi gagné ana ressources yi nek ci rew mi lan lañu gagné lan motax ñun ñu am alal gu upp France am ñu wara nek ci placement 23e position pile pauvre ah lolu deug la ngeen jël alal bi jox ko tuba bi ak serigne si fi nekk ngeen seddo ko di fonto nit ñana ay la ana lan lañu gagné wax lan ma lan la fi Macky Sall def ba wara am sañ-sañu xam nga ni jamm mo am de jamm dong mo meuna am nga tok fi di fenn di continuer dañuy fen ba tay kon boo fi waxee naan nekk di fen yow yaay fenkat bi Macky Sall yow yaay duulkat bi yow yaay seytaane bi yow yaay waaba jiibe bi sàcc alalu sénégalais yi dem jébbal ko tubaab bi fan nga soxla protection soxla woo ko ci sa peuple yaa ngi ko soxla ci tubaab bi nga jox suñu alal ñëw di ñu kalli ak di ñu fontoo ku jóg ngeen naan ko salafiste nga da nga ñuy duul wan sa genn waaw ay fenkat ngeen ah? léegi moo ubbi sama bitik cent mille francs di liggéey dégg nga saa yu ma liggéeyee su ma wàccee dem jënd 2000 francs dibi saa yu ma liggéeyee ba wàcc jënd 2000 francs dibi jënd lu rafet teg léegi nag li rafet li mi ngi ci sama yaram dégg nga li may jëndee 2000 francs ana bénéfice bi ana bénéfice su bitig bi bu yàggee du tëj ah ana bénéfice ba ana suñuy zircon li mu génn ci alal ana suñuy pétrole suñu gaz li mu génn ci alal doomi xaraam yi bor yi li ñuy yore ci bor kenn mënu la wax nu mu toll ngeen bëgg fi toog c'est parce que dem ngeen ànd ak sëtu maam borom Touba maam El Hadj Malick yi jox leen xaalis bu dul jeex bërki démb Maodo Malick si doomu maam Abdou Aziz si Dabaax ñu ngi sàcc ci këram 55 millions. dégg nga dëkk bu mu dëkk boo mën a nekk bu jaar yoon waroo denc 55 millions ci kër gi kon fayoo woon impôt li Sonko doon xeex fayoo ko yaa xamoon loo doon jooy li nga doon jooy yaa ko xam. blanchir l'argent xaalis bu ngeen liggéeyul 55 millions danañ ko denc ci kër ah. sénégalais yi boobu jamono ñaata nit ngay gis fii ñuy dee ñuy bëgg a dee seen yaram yi di nëpp c'est parce que yéenay responsabilité bi li woon li newoon sa baay newul ci yow cinquante cinq millions dëkk bu jaar yoon nit dana ko yor ci kër ci banque lay nekk mu fay impôt lan moo tax xaalis boobu mooy wane ni fayul impôt ku fayul impôt nag yu impôt dafa existe dañ ko war a fay du tubaab bi moo ko créé impôt dafa exister ci la ñu war di faj nit ñi di defar réew mi dañ waxante dëgg cinquante cinq millions sa baaxaay bi sa bàyyi wone ak mandute bi mu wone nekkul ci yow ak li nga ñuy dundee lépp boobu jamono sénégalais yi taalibe yi ngi nekk foofu noonu bu ngeen génnee yéen yéen da leen ñu yéene sarax boobu jamono am na nit ñi nekk ci hôpital mënuñoo faju boobu jamono am na ñoo xam ni sax seen kër la ñu nekk mënuñoo faju dégg ngeen denc ay cinquante millions cinquante nangam millions ci kër yi alalu sénégalais mi ngi noonu te kenn koo ci fëgg këram noonu lay demee ci ñoom seriñ si ngeen naan yàlla ngeen fi nekkal da ngay ñuy duul once again da ngay ñuy duul man maa ko wax ay fenkat ngeen war ngeen seen maam war ngeen yàlla war ngeen yonente bi man maa ko wax ay fenkat ngeen ku leen ko ragal a wax man nii laa amal problème yàgg ngeen ñi jaxase nag naan dañuy saaga mag ñi fi nekkul mag ku fi nekkul noo koy saaga ah? chaque jour ngeen dégg ñu ni ñun dañoo bëgg maam Ahmadou bàmb ngir taxawaay gi mu amoon ci taxawaay ndax xam nañu ay jaar-jaaram ngeen ñuy fen ànd ak bi muy sàcc alalu sénégalais yi bàyyi ñoo bor yu dul jeex ñu war koo fay réew mi li mu gañe kenn gisu ko géej gi ngàcc nañ ko ba mu jeex suuf si tamit kazalika ah ngay ñuy fen ah. nit ñi nañu yeewu na ngeen yeewu de ñii fi nekk nii yàlla xam na ni ñoo leen ñuy jiitu safara ñoo Macky Sall ñoo fi nekk di noot doomu aadama yi di leen rey dégg nga ki ngay rey di balballu dégg nga ku leen neex ngeen jàpp tëj di rey nit ñi di balballu ñi ngeen rey ngeen yaakaar ni dee nañu kenn deewu ci yàlla moo ko wax kenn deewu ci ku ngeen rey fii ci injustice rek deewul waaw ak deret ba ka sang ak lépp ay parfum lay doon deret ba ay parfum lay doon ci moom dégg nga nekk àjjana di tambaambalu yow booy dee yàlla di la booleeg malaaka comme ni ngeen ko defee booy dee rek yàlla ni malaaka bi jàppal ma jàpp jappal ma bande bi yobul ma safara bala dara di xew ni la koy waxe yeen ñiy def lolou nak la wax ni la ko yalla waxe soxna da nga am lo fi sanni kay kay kay ga daw kay kay waxal lu la bëgg neex ni la ka bi demee pardon ah, no xaw ma loo bëgg wax waaw ci ka yi ma nekk na Ayo. waay yow li ma doon expliqué dafa ñoom da xam ni nit ki buñ ko reyee ci défendre réew ma nga àjjana. yàlla nee he is not dead he is alive and Allah mm-hmm. wax ne mi ngi dee ay picc yu vert la ngay naaw ca wetu yàlla. waaw daan nañu def ci picc yu vert yooyu. amiin maa la wax loolu de. yow mi nekkoon fii di bandi bandilu di leen rey booy dee yàlla nii la koy defee ne eh jàppal ma malaaka boobu noonu ne ko jàppal ma dugal ma mbaam mi fële ci safara ma xam dégg lu leen neex def ngeen nga am ngeen doole tey ànd ak tubaab bi di sàcce alalu askan wi dégg nga ànd ak Israël bañ nga ko ba réew mi ay israéliens lañ fi indi système ba ñuy def waa eh, waa Palestine noonu lañ ñuy doon def Sénégal fii dañuy sànni ñaari yoon garanaaj yi si des yëpp ay bal lay doon duñu rey dégg nga waaw wala déet du noonu la demee tey nit dana fi nekk naan man taalibe maam Bamba la man sëñ Touba mooy sama maam te nga ànd ak Macky sal da ngay duul maam Ahmadou Bamba teel na xam loolu parce que wala yu yàlla dafa am lu mu koy wan. sëñ Touba xam lan la waxoon. waaw daan eh, seytaane dafa ñëw ci moom Iblis. Mhm. mu ne ko dinaa dugg ci sa njaboot. waaw rëbëjee. Mhm. mu ne ko kon kooku sa koko la du sama koko. waaw kon jeex kon eh, ñi nekk di rëbëjee instant bi sëriñ amatul. ndax sëriñ si ñoo la gën a bëgg a àddina a tey jii nii salaf kii nu mu tudd suufi suufi ism ah, dëgg kooku dafay bañ euh, àddina ban sëriñ nga gis buy dox ci kaw suuf bu bëggul matérialisme may baat laa la ni moom la mun taxaa yoon may baat matérialisme imam Ghazali téeréem ndax kooku sëñ Tuubaa référence na ko ba jeexal Mm-hmm. kooku imam yi mm-hmm. mooy référence ak imam yi bu seen Touba. Mm-hmm. kooku dafa dëdd dañuy ñooñu dañuy dëdd dëddu àddina xubbu samaan yooyu dañuy dëdd àddina foofu la soufisme commencé da ngay raxas sa ak xol bi ci àddina ko mën a am guidance yàlla hidaaya yàlla xëcc la ci boppam bi yàlla naan dama lay juróon nii da xëcc ci boppam soufisme dëgg moo doxu ci kaw suuf instant bi waaw ndax mënul nekk ba ndax tey bu fekkoon ne maam Ahmadou Bamba dafa bëggoon ànd ak gaa ya fa newoon ëllëg bu bëggoon ànd ak ñoom day ànd ak ñoom kenn du ko jàpp kenn du ko yóbbu résidence surveillance dañuy ànd comme tey nii ñu toogee nii Serigne Mountakha ànd ak Macky Sall di def lu ko neex nii Bass Abdou Khader ànd ak Macky Sall di def lu ko neex nii Mahi Niass ànd ak Macky Sall di def lu ko neex kon bu boobaa dañuy taxaw ci nit ñi nga xamante ñu ngi leen ñuy noot ci réew mi kenn do kenn sax dadul am sañ-sañu di leen noot kon liñ fi rey ci ay nit yëpp kenn du leen rey bu ñu ñeme woon taxaw génn ne Macky Sall déedéet. lan la yonent bi sallallahu wax. waaw yéen ñi nga xam ne a am power ah maanaam ci doon ulema jiit na ngeen sori kër lan këru politicien. bu leen bokk sax yoon wu ñu jaar. Mhm. unless ba mu des da a war a àtte ci dëgg. lan la yàlla wax ci Daawda yaa Daawda na àtte ci dëgg mhm. même bu fekkee ne is against yourself même bu la arrangé mhm. man ban njiitu diine mooy àtte dëgg fi mu ne nii ko tey daal laa gis église bi génn na ne Macky Sall ñi war a bokk ñëpp nañu bokk ndegam église église bi moo génn dégg nga ni ñu war a bokk ñëpp nañu bokk te ñee amuñu sañ-sañ bi Mahi Niass moom ma ngay campagne Kaolack commencé na def na ko sax ci dëj dégg nga yow nan la nit di génne wàññeekoo nit ñi jóge ca dëj ba di dem ñu jox leen ku ne 5000 francs ak xaw ma lan kon xam ni ma ngay campagne récemment nit ki toog ba mu neex ba dese 3 mois mu ni dafa am benn xaalis bu bari bu mu leen war a jox dégg nga ñii bëgg fi taxaw naan ay ñetti njiitu diina lañu. yow lan la yor mënoo leen ndax yàlla. tiitaluñu dajjaal. Mhm. lim ñu gën a tiital mooy. Euh, ulema bi nga xam ne mi ngi ci biir ummaam mhm. euh, jàng ba ne ay mais di changer aayaatu yàlla yi mhm. di ko changer ci lim leen gën a arrangé kooku la ñu gën a tiital sax ko dajjal wallaahi masiixu dajjal mi nga xam ne day ñëw wax benn dëgg la mës ko ci juróom-ñaar fukki fen wallaahi noonu la kaa bi dem noonu la la kaa bi demee ñii ñoo noonu la kaa ban sëriñ moo dëddu àddina boo bëggee xam sëriñ te sëriñ mi ngi tekki ki nga xam ne da lay guider da lay gaay ci yoon wi. nga gën a siraatal mustaqim pàcc boppam waaw te doo ko fay kooku doo ko fay. Hmm. ci yoon wi mu lay guider waroo ko cee fay. yoonu suuf yi dafa yomb na tubaab bi moo tas yoon wi indi wahaabi ak salafi pour rek yàq yoonu suufisme. Hmm. suuf yi da ngay gedd àddina. doo bëgg daray àddina mhm. te da ngay raxas sa xol mhm. gën a bëgg yàlla gën a jege yàlla te lépp lu bon ci sa xol da koy segg pour am divine intervention ndax xol bi seetu la dafa war a gis gis aliwal ma xuud buy nelaw pour xam li ñëw ëllëg ndax bi bi salaaw sam wàccee liggéey ba pare ah li des ci euh, wàllu yonent ci wàllu yoonu yonent bi mooy gént pour nga am loolu nag sa xol dafa war a pure and nga am xusnul xaatima ak xusnul xuluub ban sëriñ nga am loolu jamono bii. Mhm. sëriñ yi fi nekk yëpp presque waxuñu dëgg duma ni ñëpp nag. macha allah macha allah yaa dégg nga noonu la kaa bi demee. noonu la kaa bi demee. kon nag na ngeen xam bu baax ni yéen a ngi ci yoon yéen a ngi ci yoon toppale sàcc alalu réew mi lépp ah. lepp ngeen sàcc ko xaññu ko di fen naan ay li nga fi def lan nga fi def yow li nga fi def lan la ana la loo fi def ana bénéfice réew ma yi nga taxa tabax te ñun ñu war a fay ay bor yu dul jeex ah fa nga fekkoon bor ba nga triple ko di fen naan li lan nga fi def yow kan moo la war a kan moo la war a gërëm nga yaakaar ne sénégalais yi xamuñu ni ngeen nekkee mani la mu neex leen changement par force mu naqadi leen changement par force te bu sénégalais yi amee fulla sonko day bokk force bu sénégalais yi amee fulla kenn du remplacer so Sonko dafay dem ci élection yi te moo leen ñuy gagné bu amee fulla bu sénégalais yi amee fulla nag laa wax Sonko moom romb na ay fullaam ma ni bu sénégalais yi rombee fulla yow yow yow yow yow lan nga fi gagné kan nga fi mën a nax ah dem defaral sëriñ si fi nekk tappalekat yi dem defaral sa bopp ah ngeen ñuy fontoo waaw <laughs> ah, di ñu fontoo ah gars yi toog leen ngeen seetluwaat bu baax a baax a baax Macky Sall lii mu bëgg a nekk stade yi muy puukare woo ay imbécile lu markatu taat ànd ceeg moom dégg nga naan tabax na lan la tabax ñun ñooy fay bor yooyu noonu réew mi ana géej gi alal bi génn ci géej gi anamu ah alalu zircon bi anamu ah alalu pétrole bi anamu te mënoon tabax loolu alalu gaz bi joxu leen Sénégalais yi liggéey di leen fen ah di fen nit ñi ah li ngeen def mën ngeen ko def de waye nit ñi tamit wané nañu ñom tamit seen wàll ci réew mi dañ ko soxla dégg bor yi ni dañ koy wat ci seeni poste fay ko mais amuñu droit di len fayal seeni bor nga ñi fen bor yi po seen poste lañ koy jëlat yeen ak Amadou bak sacc yépp fu ngeen denc alalu sénégalais yi ngeen génne ju ko fay bor yi te liggéey réew mi ni la kaabi di démé inshallah du ni ka Macky Sall la bëggee lay démé dé ni ka askan wi bëggé non lay démé dégg yo yow yow da nga yaakaar da nga dëgër bop yow ak général Moussa Fall da ngeen jaakaar am ngeen fit da ngeen dëgër bopp da ngeen ñuy duul ba bu desee ci population bi da ngeen xam ne danga ñuy duul waaye yow ñuy fen ah di jaay nit ñi dëgër boppook reewande dem yóbbul ñu ay bor yu dul jeex ah jël xaalis bi dem neexalee ko ay nit ay seytaane laa mën a wax neexaleen ko ah stade yi ngeen naan Macky Sall tabax na autoroute yi ñu war koo fay ana bénéfice su géej gi ana bénéfice si suuf si ñu yor ana bénéfice yi liy génn ci suuf si ah ana bénéfice boobu noonu da ngeen yaakaar ne ay dof ngeen ñu waxal fii ay nit njaay ngeen ñu waxal ay dof nekkuñu fi ay dof nekkuñu fi de kon ni sénégalais yi taxawee nii ne changement day am deux mille vingt quatre force lay doon dégg nga dem jëli say magistrat doomi xaram neexal leen ak lépp ci yem te bu ñu moytuwul seen bakkan a ngi ci seen xottu sax seen bakkan a ngi ci xottu gerte yéen tubaab bi ngeen yaakaar na askan wi taxaw ba ngeen xam ni tubaab bi mën na dara ci ñun dégg nga jël ay magistrat neexal leen di leen fenloo ñiy fen ak lu nekk ñu ciy dugg ah, di fen lan nga fi liggéey yàlla xam na ni ku ni Macky liggéey na seytaane nga man maa ko wax te nga gis lépp ne Macky Sall liggéey na yàlla xam na ni seytaane nga waaw seytaane mooy taxaw fii ni Macky Sall liggéey na ngay seytaane xam ngeen ñaata bor la ñu Macky Sall bàyyi xam ngeen ñaata bor léegi bu nee liggéey na tabax naa stade man maa ngi xalaat bor yi mu ñu bàyyil ñu war koo fay mu fekk bor bi ci benn yóbbu ko triple wala dix fois ci kawam ah ana li nga liggéey ana bénéfice bi xaalis bi yëpp ngeen jël ko def ko ci ay compte banque séddoo koog seeni ñoñ jox ci markatu taatu xaraamata njaay yi ngeen bëgg fee nekk toog ci biir tele yi nekk ci ensemble bi dañu gëmloo naan diw salafiste nga diw lii la diwlale la duuli kese di fen ah yéen da ngeen gëm yàlla dèjà bu ngeen gëmoon yàlla di ngeen sàcc alalu askan bu ngeen gëmoon yàlla di ngeen sàcc alalu mbooloo doomu xaram yu bon yi ngeen doon ku wax ngeen bëgg ko diaboliser na ngeen xam ne fii du ñëpp la ñuy diaboliser bu soobee yàlla ay mbaam ngeen buñ ne Macky Sall tabax na grand théâtre man te lan lay xalaat bor yi ñu teg suñu ndodd yi ñu war ko fay ay ay seekali seekal lañ koy fay parce que dèjà jël nañu bor yooyu noonu bu la tubaab bi joxee bor intérêt bi mu ciy teg te duñ ko sax contrôler intérêt mën ngaa fay bor bi ay junni ay ati at léegi nga di fay ay intérêt ay intérêt ngay fay ay ati at bala ngay fay bor bi looloo waral ñu naan baal nañ ñu ban bor ba lan lañ ñu baal ñun lii ñu yor ñu jël ko ñooñu ko jël nan la ñuy la ñu mën a yore bañ ñuy baal doomi xaraam yi ngeen doon ngeen réew mi yow yow defloo loo réew mi mu avancé keneen ko am ci avancement réew mi du duñ ko fi bàyyi mu bokk sonk mooy bokk far force waaw force lay bokk doomi xaj yi ngeen doon xaju xaraam yi ngeen doon yeen yalla leen yàlla alak fi ak fa ñu jëm de nga fi lañu togon Cheikh Amar di def lu ko neex muy metti suñu xol ñuy julli yalla di ko ko ñaanal fi lañu tok muy dawal auto ba genn ci auto ba daal di dal ci biti yalla deewagul de deewul de yalla bayyi ko fi ni ñu togaat fi tay ngay dem ba tok ñu naan ay dam amar ma ngay tëddee jabar ju ndaw ja lu ngeen yaakaar loolu jamm la nañ waxante deug rek ñu naan xaw ma daam amar xaw ma kan xaw ma lan amar ma ngay xaw ma xaw ma lan daal benn waay joo xam ni daf koo jege ma ngay tëddee jabar ju ndaw ja lan la def bi ñu nekkee fii ànd ak Ablaye Wade di sàcc alalu réew mi lan lañ def dégg suñu ñaan lañu def man toog naa fii ñaanal ko ak keneen ak keneen képp koo xam ni dafa laale ci alalu réew mi yàlla na lu yées dal li dal Cheikh Amar lu ko yées yàlla na leen daal tey mu toog fii naan dañ maa yoreel ay bor lañ ma yoreel ci bor nañ ma ko fay ah ba ngay ñuy sàcc alalu askan mënuñoo faju nit ñi di daw di génn réew mi di wuti teraanga fu ngeen nekkoon boobu yéen a ngi sàcc alalu réew mi ànd ak ay waykat ay doomi xaram yu mel ne maam góor jazaaka ngeen xaritool ay mbaam yu mel ne maam góor jazaaka jël alalu sénégalais yi ñoom jox leen ci ñu defar seen àdduna ñoom dèjà ba bew dèjà ah nit ñi mérito woon jàng ba jeexal kenn joxu leen liggéey benn doomi xaram bu tekkiwul dara dóor ay njañam na di ngeen jël alalu réew mi xaritoo boom di ko ko jox ki jàng toog ci baaw école bi mënul teg moom mooy dawal ci 4x4 yi moom mooy toog ci biir étage yi yu mu moomal boppam dégg nga ci nga xamoon ni képp koo xam la taxawee ba ci tey jii nii yàlla ngeen torox ba romb Cheikh Amar man maa ko wax yàlla ngeen torox ba romb ko sàccu xaraamata njaay yi ngeen doon léegi nag yéen a moom réew mi am ñoo xam fële la ñuy yow boo ñëwee ci réew mi danañ la yara dugg na fii génn ngeen yaakaar nit ñi danañu delloo ginnaaw wala ah man de dinaa tiit naan wuy sama ndey man de su ma demee te teemaa bàyyi kon li may wax man de su ma demee danañ ma tëj man de su ma demee danañ ma torturer dégg nga loolu ku koy taxawee di ko ragalee doomi xaram yi sax doo nit ku gëm dëgg ku gëm yàlla dëgg dëgg dëgg doo ragal doomu aadama au contraire ñoo lay ragal benn doomi xaram bi ma ko mujjee woon wax chaque jour su ma gisee problème mu sénégalais yi ma yónnee ko dégg nee naa ko nag. yow bu may ñëw ci réew mi day fekk takk nga say dàll daw bu yàgg loolu laa ko wax te noonu lay demee bu soobee yàlla te yàlla na demee noonu doomi xaraam mi ngeen doon ah di fontoo nit ñi ku yëngu ñu tëj ah noonu la ñuy defee noonu la ñuy yoree réew ah sàcc seen alal ku wax rek ñu tëj ah jàppal leader bi di tëj di kidnappé di kidnappé ñi nekk ci kaso bi Macky Sall kidnappé leen xanaa réew sax bu ñuy jàpp nit dañ lay jàpp ci justice waaye jël la tëj la ci kidnappé Kip la nan luma neex lay def nan reccuuma lii ak reccu na le manela togal fofu nan reccuuma bo duggé bamél da da nga recc yalla moy sétané non waye negal ba nga dugg bamél nga xol def lu bax rek am solo ne nga rëccuwuloo dégg nga da nga dugg bamél nga xol yalla mën na la bal de Macky Sall yalla mën na la bal de billahi yalla mën na la bal waye ndax doomu nga don ñom dinañ la bal yàlla yërmande moo jéggi dayo moo jéggi dayo jéggi dayo boo xam ni yow moom ngay foowee kii ànd ak yow tamit moom lay foowee te yàlla tamit wax na foofu noonu de nee na tamit sama yërmande bii bu ko kenn jël di ko kalikalee de yàlla kenn du ko kalikalee ku ko jël naan sama yërmande bi lu ma neex laay def moo tax boo reyee fukki xale dem umra ji yaakaar ni yàlla di toogal rek Macky Sall yàlla mën na laa baal waaye doomu aadama yi nga tooñ ndax mën nañ laa baal foofu la problème bi nekk <laughs> foofu la problème bi nekkee dégg nga kon nag ku yaakaar ni àllaaxira ca ngoon amul lu la neex defal kuy yaakaar ni yow mal xiyaam ca ngoon amul Macky Sall mani la yow ak ñi nga àndal lu leen neex def leen lu leen neex def leen waaw nii la kaa bi demee dégg nga nga yàlla yërmande ba amaana sax mën na laa baal amaana mën na laa baal waaye ndax ñun population bi dinañ la baal Macky Sall loolooy problème bi loolooy problème bi ba tax na na rang yi jub rek dégg nga ñu voté incha allah te sonk day bokk far force sonk bu bokkul élection du am loolu laa mës a gëm te day am dégg nga ba 2024 doo fi xëcc dara sonk day bokk far force lay bokk doomee xaraa mi ngeen doon force lay bokk nga ma fii nii ki naa yow yaa gën a xam ni sonk day bokk dégg nga da ngeen ragal lan moo leen tere woon jub da ngeen ragal sonk bu bokkee tëj leen lu leen tere woon jub ah lan moo leen tere woon jub doomi xaraam yi ngeen doon waaye yow ñu ay mbaam lañu quoi naan kii mooy bokk kii du bokk mel na yaa moom réew mi ah ànd ak sëriñ si sëriñ Mountakha ànd ak yow dafa tax nga moom réew mi sëriñ Mahi Niass ànd ak yow dafa tax nga moom réew mi sëriñ si fi nekk nii ànd ak yow dafa tax nga moom réew mi wala ngeen moom nit ñi ah lu dul nit ñi xamee leen ci jéppi leen ba faw kese moo ciy am ah sàcc xaraamata njaay sàcc alalu askan wi ñu waroon fajoo sàcc yu bon yi ngeen doon ah réew kay ñu ko tabaxee dañ naan am nañu bénéfice ci géej gi géej gi da ngay gis chinois yi di napp di kontaan ndax sénégalais yi kontaan nañu déedéet ñu ŋàcc géej gi yëpp jën yi waroon a jur ak yëpp ñu ŋàcc ko yóbbu ko ah ndax ñu ngi profité fu mu toll nii seen contrat bi jeex na wala ah Macky Sall de mën nañ koo uutu te nit ñi joxe woon licence jaarul yoon mën nañ koo jël nañu profité. chaque jour bateau yi di tëmb ci géej gi sawaay vingt quatre heures sur vingt lu ñu romb jàpp yóbbu dégg nga te sénégalais yi duñ ko lekk loolu mooy liggéey doomi xaram bi loolu mooy liggéey route nationale baa ngi noonu ay pax la nekk loolu mooy liggéey doome xaram bi nga yaakaar yow mën nga ñoo napp ragal loo ñu wala nga dem naan ay da ngay dem di ñu bind wala say nit di ñu bind naan bu ngay ñëwee ci réew mi tous laa leen wax tous mënoo leen ko ci nit ñi loolu mooy liggéey ah teg ay bor yu dul jeex ana bénéfice bi génnee ci géej gi ana bénéfice bi génnee ci teer bi euh, ci ci ci ci suuf si anamu ay bor yu dul jeex yi nga ñuy won ni ñu koy pookarewoo ñoo koy fay anamu anañu sàccu xaraamata njaay jeexal ngeen xam ngeen ko nii ma gisee sénégalais yi taxawee di parrainage musuma koo gis fenn ba parrainage amee ba léegi kenn ku ci nekk dem nga tappale rek ne man li ma soxla woon ci parrainage am naa ko dégg nga te gisuleen benn nit dem naan ay projet dem ba récemment bërki démb ñu naan bourse familiale ñëw leen bindu ji ci bourse familiale léegi noonu la ñuy jëlee parrainage loolu danga nga koo sàcc loolu sàcc la dégg nga ñun nag du ñu demee affaire parrainage bi dañ koy def rek comme ñëpp waaye du ñu demee parce que ñi ngeen jël seen carte d'identité sàcc ko du ñu du ñu même bu ngeen ko jëlee bind ko ci seen parrainage jouru élection bu leen taayal dem leen ngeen voté ji la nekk ca kees ba ngeen jël carte Sonko def ko fa carte yooyu la ñuy compté bu ñu ko compté ba mu fees ci bureau boobu ngeen bind ñu bind dégg nga bu ngeen ñu fi indee leen naan këyitu parrainage bi ngeen ñuy indi yóbbu ca tarbi tribunal ba ñu lakk seen gat encore doomi xaraam yi ngeen doon da ngeen yaakaar ni ngeen fi sàcce woon ole élection 2019 noonu lay demaatee ndax ngeen seen bopp encore say stratégie nga teg jël doomi xaraam bu mel ne Idriss Seck indi nga xamante ni mënul sax am ñaari nit yu ko voteel nga ne ko yaa jël deuxième élection au jàmbur teg tappale yu la neex utiliser justice waaw sais déet xam nga 2019 Sonko moo la gagné 100%? sénégalais yàgg nañoo pare ci yow yow xam nga sénégalais yi bu ngeen voté ba na ngeen vote affaire parrainage ay caaxaan la rek ay carte ya ñuy urne ba ci am solo loolu moo ci solo dégg nga bu fii kenn du fi àtte naan ay ci kayitu parrainage yi la ñuy àttee kenn du àttee ci loolu doome xaraam yi ngeen doon sàcc xaraamata njaay xaju xaram yi ngeen doon xaraamata njaay sàcc yu bon yi tuug tuuge vote hmm? voter seen vote dégg nga na ngeen voté te protéger voté yi moom bu ngeen ko bureau yi li ngeen fa voté massivement ñu compté ko bu dee ne bureau boobu Sonko am na fa un million Macky Sall am fa ñaar ñu xam ni bureau bii Sonko am na fa un million Macky Sall ñaar la fa am dégg nga ñu xam ko ñu bind ba kenn sàcc fi élection ñu tégal sa lu bon xam xaj kon sama gars yi jaa maa ngi ñëw julli ji càkk man jaa ngeen